sëñ Mourtala Mbacke yàlla dogal mu tegoon ko fa muy jiite njabootu sëñ Tuubaa gi fa nekk yëpp sëñ Mourtala sëñ Mour sëñ Mourtala daan fa ñëw di ko fekk si ba mu liggéey ci liggéey bu yaatu bu am solo liggéey boobu nag moom lañ bëgg a leeral si fii muriti jiwaalo yëpp ngir ni ko yàlla baaxee murit ci fa ci wet yu ne mboolem diaspora bi di ñëw di fekk si karawaan bi ba yàlla dogal soxna Batoor dëkk bii di ab dëkkam waajuram yëpp nekkoon fi magam yi ñoom Seex Daaru ñu ñaan ne nañ ko yóbbu jiwaalo ndax murid ya fa xam nañ seenu takku xam seen pasteef xam seenu bëgg sëñ Tuubaa ba yàlla tax loolu mu sababoo ñëw fi kon mbooloo moomu yépp ci turu sëñ Moutala mii nga xam ni sëñ ko soo ko meññi sëñ Moutala sëñ Muntaxa daan ko fa yebal at mu jot waaye nag ci turu sëñ naa Buso sëñ Seexuna Buso yàlla dogal na sëñ Fàllu Buso mii ma doon leeral nga xam ni liggéey bi moo ko sosoon amal ko ay kayit ci réewum Gabon xam nga liggéey ci réewum jàmbur jafe na ndax nit ñi ñuy wax ni dañ leen a bëgg a yóbbu maa yomba su fekkee dañ koo bëgg a jaar ci légalité ñuy am ay visa ñu yóbbu leen ca dëkk ba ñu mën faa sax loolu ay kayit ko man ak administration moo ko man loolee sëñ Fall bu sax amal na ko ba tey mbooloo bi yëpp buñ bëggoon a dem tey jii topp jaar-jaari sëñ Touba fii la ñuy toog rek xëy dem aéroport duñ dem ci ambassade duñ dem ci fenn di lijjanti dara karawaan bi am nañ possibilité ci ay kayit yu ñu leen mën a invité ñu ñëw foofa ñoom ñëpp topp jaar-jaari sëñ Tuubaa ñibbisiwaat fii ci Sénégal su ko defee kon ci turu kilifa yooyu nga xam ni mooy sëñ Seexuna Buso ñu ànd fi nag ak jëwriñ joo xam ni mën naa ne ñun Gabon du ma nangu sax ñu naan sëñ Fall Buso Tamba sëñ Fall sa Gabon laa nangu li nga xam ni nag moo ñu fi dajale ci ñaar wala ñetti fànn lay doon benn bi mooy njàngum xasida mi nga xam ne ci lañ te lépp sëñ Tuubaa bi ay xasida ak leeral tamit demuk sëñ Touba Gabon ak lam doon wuti ak lam yu jural ñun ñëpp waaye nag li tax karawaan bi déplacé wu ñëw jiwaalo mooy fekk si mbo mbo mboole murid yi fi ne xamal leen liggéeyam sëñ Touba boobu na mu rëyee ak la ca war lépp ci ay projet yenu ci ak ku bëgg a dem Gabon nooy def ak liggéey ba la muy rëy rëy murid bu ci bëgg jàpp foo jaar ba man caa jàpp kon loolu moom mooy sababu yi ñu andi jiwaalo bi yàlla dogalee ñu tënk kayit yi ba noppi nag kenn ku ne xam ne ni sëñ Touba dafa sampoon ñeenti bantam ca Maayomba bi mu sampee ñeenti bant yi mu def ko ngir muy jàkka mu di ci dugg di julli tubaab bi yeble ni nañ simpi bant yi sànni ci àll ba bu nu xatal dañ ni ko bu nu xatal sa jullikaay bi xaju ca kon bu nu toogee ba tey jii ay sooroor jógu fa ñun murid yi yaakaar naan ku làmb sab xol di nga xam ne am na lu la dese su ko defee nag karawaan bi premier objectif am mooy fa sëñ tubaa juma wutal ko fa sant culturel islamique bu ñu jàngalee boo xam ne soxna Jaara lañ koy tuddee wut fa bisub kër goo xam ne kër Seexul Xadim lay doon. loolee nag am nañ fa ay indi nañ nag ci ay yoon meeru yomba ak bu làmbar na Touba bi ñu ubbi Masaalikul Jinaan fekke nañ ko ñoom signé nañ jubilage mooy mooy seexale nañ. làmbar na bërki dem meeru tubaa moo dem di ko signé ji ak sëñ Xadim Mbàkke ak karawaan bi accompagné la sañ Moussa Niang nga fi ak soxna maam Asta ñoom ñëpp àndoon nañ ca yoon woowee ñu ñu dem defi loole kon Mayomba ak Touba ak ak Touba seexale nañ leen ak làmbar na léegi nag loolu lu li tax ci à l'étranger dafa am fu man maanaam yem Gabon dañoo wax ni domaine foncier maanaam lu jëm ci suuf dañ koo réservé il est réservé aux nationaux maanaam ña nekk ca dëkk ba rek ñoo am droit dem fekk suuf ñu fak ko di di ko jël comme nag ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lañ waaye du ñu woon ay gabonais kon nag li ñu man mooy ñaan mbaa jënd waaye mun noo li jënd suuf fa yàlla dogal nag woo sëñ Fall Bousso mi ma doon wax jox ko 200 nationalité ni ko may naa leen ngeen sukkandiku ci nationalité yi ba mën a taxawal sëñ Tuubaa fépp fu suufam ne woon wala fu mu jaaroon rek ngeen jël fa suuf tabaxal ko fa kër defal ko fay jàkka ndax man je suis un mouride de cœur loolu la président Omar Bongo wax daal di koy décréter ba ñun ñiy ñëw ñi ëpp ci ñun ay nationalité Gabon lañ yor muy sëñ as mi ak ñu bari ci suñ jotaay bi. loolee nag ba mu amee ñu taxawal benn commission tàmbali di liggéey dugal benn récépissé ci ministère ministère de l'intérieur bu Gabon ñu accordé ko ba joxe joxe nañ récépissé définitif bi nga xam ni mën nañ cee sukkandiku ba kuñ bëgg a invité Gabon invité la mbedd buñ bëgg a baare baare ko fuñ soxla suufu sëñ Tuubaa sañ ko faa laaj kon lii moo xew Gabon loolu jàmbaar kenn du ko ni kaa ñu xeexi da nga ko yóbbu fa ñuy xeexe mbërum làmb boo ko yóbboo ci làmb rek bu xiin di jógee mu baax waaye am murit ku ko wambat ba maa yomba ni ko sa sëriñ bi fii lañ simpee woon ñeenti bandam sànni ni ko jumaa lañ fi bëgg loolu dina gaaw sëñ Alaaji Seck waaye maa yomba yombu la dem kuñ naa la dégg na kem Seex Bàmba ne eko fu mu ku naa la gis na kemam laaj liin ko kooka kumu kuñ naa la dégg na kem Seex Bamba nee ko fu mu ku la gis na kemam laaj leen ko kooka ku mu dama ne kuñ naa la dégg na kem Seex Bamba nee ko fu mu ku la gis naa kemam laaj leen ko kooka ku mu lu kenn gisul aw dongam sàkkaati xam fu mu toll ku la gis naa ko kookee nee ko kon anamu yàllaa ko muy lépp xañ kom kem ni leen manaam ku naa la maadim kemam ni leen ko yaa xorom maa yomb yomb la dem am ndam lu sell di kaat na yomb dem am ndam lu sell di kaat wiir wiir yomb la dem am ndam lu sell di kaat kon def leen ko muy ilimaan ni jaam ñi yiit ku dem ba jeewal te jéeloo len jaali wu ñuy bokkam du seen mappandoo nii leen ko maam yaa ngi ku dem ba dawme dammoo deewoo rafoo taddawoo yow suñ nga ñëpp salaan ngeen ronguma gaa ngi soxna bëtër jërul jooy yow da ngaa gore sellal sa murit te dëggal yàlla na yàlla guddal saw fan tamay la nga wér suñ bay jaxate nee na kër goo fi gis mu jub kilifa gaa jub ngir picc sax sabiinu bàyyi balay sax waaw gannaaw picc nag moo am way gu toll ne xool na baayam doon sabe mu di ko sabe waa nit ki mu togg jëf nu mu war a def ah man de wax nañ ma sëñ Malick sekk na meloon wax ma Baye Saliou Wade na meloon du ma ci sori lu ñëpp xam wax ca tuuti doy na waaye man daal jàpp naa ne murit sëñ Tuubaa yii nekk Joal gii ku ci am pësif te amu bëgg dangaa nekk soxna ba door ñu dem Mayumba moom loolu xam naa ko ndax Mayumba ak man dafaa yóbbuwul nit sëñ Cheikh Mbengue ngi nii laaj ko maa yomba ak bëgg moo fa yóbbu nit du man de bii mooy ñetteelu yoon ma dem fa xam ngeen lu tax déw ma maa yomba dañoo waxoon si si si Muntaxa ne ko Mbàkke ren de dañoo am pas-pasu tëbal ci ni ñu ko waxee woon mu nangul ko sëñ Cheikh a ngi laaj ko lu ñu dajaren ci dem maa yomba badda toog rek ba yàgg mu ne bu ngeen demoon rek ma am lu ma jaaxal sëñ bi bu nee déet lu tax ngeen naan waaw ma ne ko maa ngi jéggulu lii kat la ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di siyaar nag mboolem waa caravane Mayumba bi nga xam ni ñoo fi ñëw indil ñu tedd nga ji nga xam ni murit amut lenn lu sëriñ bi waaye nag di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Muntaqa Mbàkke waaye nag di leen nuyoole ak ñi nga xam ni ñooy kilifa murit yi ci dëkk bi ginnaaw bu leen nuyoo léegi sëriñ Abdul Ahad ak Cheikh Mahamad Basir mii doon nuyoo léegi imaam bi nga xam ni mooy jiite ci jàkka ji ëlbatiku nekkaat ci biir kër sëriñ Touba gi mu ngi nii toog woyof ak mbaax ak dal rek moo tax mu nga toog nale di imaam Jibril Mbay ànd ak it imaam Moustapha Cissé Baye Cerno Kan baay alxaaji silla baay góor a njaay wala sax ñaari baay góor a njaay baay daam saar baay seega njaay ñoom ñooy magi kër suñ tubaa gi ñu ngi toog nee ànd it ak pas-pas di it sant it ki nga xam ni liggéey bu kawe bii ci moom la jaare muy soxna Batoor Seck li ngeen wax ci moom léegi ba tudd Baye Malick noonu la tëdde ku xam way juram wu góor ak wu jigéen lu mu def ci ak mbaax doyul yàlla dogal na bay malik kilifa gu munti doon ci mbakke wala ci Mbusoobe yàlla defal na ko taw feexu xaw ma fu alliwaam toll de ña doon ñëw xaw ma fu seen alliwa toll waaye amul genn kilifa gu mus a ñëw yëkkati benn baat moo xam fu mu jógee ci alquran ci hadis ci xasida ci arab wala fu lu ci doon soo ko yëkkatee moom du xaar nga baama ko moom booy daaneel ma la koy firil ci wolof te alhamdulilah rek nga cay teg ndax ku ñu waajal la ku jàng la. Baye Malick moom it ca Kajoor Cheikh Sadio bi ma tudd léegi daan na wax baayam di maam njaga ni képp koo xam ni loo may jox la mbaa may diis la boo dajek njaga yemal ci moom wuutu na ma fa. yéen gaa mbul bàkku leen am ngeen ku kenn amul seen bàkk waa ngii na ngeen may ñaanale tooti wut leen a wut ngërëmam ngir kii. ku am ngërëmam am ngërëmal ñañu daa dégg ak ñañuy seeti aboo mu sikk ma dib laa te bëgg gadabe mu indi askat di yaam tey duy lu yaati mooy sant bay sant baay doom taxam li mu xam du parti mu këkë far far loo du xeebaate mucc ak mos ak ndolle nag njëggal wér gudd fan jàmm ak jak ak yeg tawféex ak ndimbal yaati dërëm a xol bu sedd ak barke yàlla nanu dal dal képp rek ku fi teew tey jii mu jëf tuuti <laughs> allah ji waay yàlla yàlla guddal sa fan phénomène nga de ba ci yoon wi barke borom Tuubaa yàlla yàlla dool si fan nee na itam nag ci turu maam noo Mbakke ibnu sëñ euh, sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbakke nee na mu yebal ko fii tey ci bis bii nee na di bis bu am solo nag bis bu mu bàyyi xel moom sëriñ bi bis bu mu xam dëggi liggéeyub sëriñ tubaa ba tax na mu balaa ñuy doon yi te yëpp ni yebal naa la kat nga bàyyi mboolem yitte yi ñëw fii tey jii ci juwaalo teewal koo fi ànd ak ak bokkam yii nga xamante ni ñoom la fekk nee na dale ko ci Serigne Cheikhouna Bousso ak Cheikh Mouhamadou Fadal Bousso nee na bu leen tuddee nee na kot mu di matale mboole mbokk yi fi teew yépp itam nag nee na Cheikh moom sëñ maam Thierno mi nga xamante ni moo ko fi yebal tey nee na xam xam gu mu xam bis bii tey xam gu mu xam yittey soxna Batoor Seck xam pasteefam nee na xam gu mu xam liggéeyab Serigne tubaab bi ak lu mu ko ñore ak ni mu ko lu mu ko jaral euh, nee na sëñ bi kat dafa la daa dogal mu tukki moo nekk nekku fi nee na kon tey wax dëgg yàlla kenn ku ne dina xam ne tey jii moo fi war moo fi teewal boppam ndax digganteem mook soxna Botoor. xam gu mu xam ne. xam gu mu xam ni. bis bi liggéey bi liggéey bi sëñ la. mu ñor ko lool itam nag. sëñ bi boole leen. at yi ci ginnaaw. ànd koog ñoom. mu mu ñëw di ko ànd ak ñun ca Gabon. loolu yóbbu ko ci. mu xam liggéey bu baax a baax. xam xam yittey soxna Batoor xam taxawaayam ba tax na bii tey da koo fekkul ci réew mi nee na xañ na mu jubloo feeñal yéeneem ci digganteem ak soxna Batoor ba dépêché ko moom nee na kon tey tey jii xam ngeen ni bu ko fekkoon moo fi teewal boppam ndax kenn dayu ko ci nee na kon nag nee na képp ku fi teew sëriñ baa ngi leen di sant bu baax mu ngi nuy gërëm nee na ni ko bokk yi waxee léegi ci Cheikh Mamadou Fadal moom mi nga xam ni moo sosoon liggéey bi tàmbali ko ba mu agsi fii tàmbali ko ba mu agsi fii tey ànd koo bokk yi nee na Cheikh bu so Bousso nañuy dellu di ko ñaanal bu baax a baax sunu borom di yokk yokk yërmandeem yokk njëgalam ba njaboot gi mu fi bàyyi liggéey bii nga xamat moom la ñu bàyyi li mu ci yéene woon ak ni mu ko bëggee woon de suñu borom defal ko ci tawféex sëriñ bi ne mi ngi dellu sant suñu borom Mawlana tabaraka wa taala sëriñ bi ne yàlla dogal nañ fii mu toog day mu ngi am mbégte mu rëy ci barab bu tedd bii ñu toog tey ngir lan ngir di fàttaliku sunu yaakaar seexul xadiim muy jataay boo xam ne yenn jataay ci àdduna gën koo féete kaw nee nag loolu nag moo tax ñu gën a sant sunu borom bu baax a baax nee xañ nga kay kàddu gi du gudd nee sant kàddu sant rek lay doon nee ci sunu mag sunu kilifa Cheikh Mouhamadou Fadal Bousso ak sëñ Mouhamadou Moustapha Bousso ak sëñ Baye Dame Mbaye daa daana mel ni bu ñu waxee nee na dina lu mën a yóbbaale ñoom ñëpp nee li ci ëppoon solo sëriñ Cheikh Mbeng mii jëwriñ wax na lépp ne li ma tal leeral ci liggéey bi ak doxin bi leeral na ko ba mu leer nañ itam na ak pastéefam ak yitteem ju kawe bu ñu ko tuddee mën na noo tudd mboolem ñi fi toog ñëpp ne ànd ko nag ak suñu imaam Masayer Fall sëñ Masayer Fall ak sëñ Kalam Ñang ak ku ñuy wax Omar Ndiaye daa mel ni bu ñu tuddee tudd nañ ñëpp sëriñ Xaasim Sarr di moom it di jàmbaar di kenn ci mbooloo mi da amalal na it lu mel nii ca Touba dara waralu ko ngir yitteem ju kowe nii nag nee ñun ñii day ak ñi fi teew si bi sëñ sëñ seexu naa ne bu xañ na man naa seere ci ñun seere gi mooy xam naa yi day ñun de ay julit lañu ay murit lañu waaye ñu am pastéef lañu amuk kóllëre am yitte ju kowe ci liggéey suñ tubaab bii fexe rek mu jëm ca kanam kenn koo gis muy dox yitteem du dara lu dul jëmale liggéey bii kanam kanam rek wutu ci dara wutuñu ci dara sëñ tubaa daal moo nu ñor te ku yàlla dogal nga jóge Sénégal dem ba Gabon dem ba Mayumba gis nu di nga mën a nangu bu baax a baax li ñuy wax ndax mbir la moo xam ne Pastef fa koy def. Pastef fa koy def de. ak ku bëgg. du alal. du alal de. muy séntu. maanaam du ñuy séntu. du ñuy séntu. du fa nekk. ña fa nekk. maanaam du fa nekk. dafa nekk. du tax nga ne. du tax nga ni. ñii kat. ñii kat. koom mii. am koom. moo tax ñuy sonn. sëñ Tuubaa rek tax moo tax rek ñuy sonn lay bu wax na dëgg soxna Batoor Sekk mii itam ni ma ko waxee léegi. ni ma ko waxee léegi. day jàmbaar joo xam day jàmbaar joo xam ni. nit léeg-léegi. nit léeg-léeg. mu dabe ci aw mbooloo. mu dabe ci aw mbooloo. jëf fa jëf joo xam ni. jëf fa jëf joo xam ni. day yéeme lool day yéeme lool. moom nag loolu moo dal. nee na loolu kat moo dal soxna Batoor. ndaxte. ndaxte. dabe na. dabe na. waaye jëf na jëf joo xam ni. waaye jëf na jëf joo xam ni. kawe na lool kawe na lool. ci pasteefam. ci pasteefam. ci yitteem ci yitteem. mboolem lu yëngatu ci wàllu di ci mboolem loo xamante ni yëngatu na ko ci wàllu wii mu féete da ngay gis rek moom mu taxaw mu taxaw mu jaral ko lu ne nag. Ah, di daanale rek sëñ bi. ne di daanale rek sëñ bi. sëñ Mouhamadou Mourtada. sëñ Mouhamadou Mourtada. moom mi nga xam ne. moom mi nga xam ne. moom la fi sëñ sëñ Koso. moom la fi eh, waajuram ba sëriñ Koso Mbakke. moom sëñ Mouhamadou Mountakha Mbakke. yabal yabal. sëñ Koso nag. sëñ Koso nag. day kenn ci liggéey bi. day kenn moom ci liggéey bii. liggéey bii Muntaxa daan yónni moom la Sëriñ Muntaxa daan yónni mu ànd ak Sëriñ Xaadim Mbàkke mu ànd ak Sëriñ wax na ko léegi Sëriñ Cheikh Mbengue wax na ko waaye ci pasteefam ci woyofam ci woyofam bëgg liggéey bi ci bëgg liggéey bi waxtu wu nekk waxtu wu mboolem lu yëngatu karawaan bi mboolem lu yëngatu karawaan bi xalaatam xalaatam ak léppam ak pasteefam ak léppam mi ngi ci biir mi ngi ci biir ñor gi ko ñor nag ñor nga xamante ne moom moom la ko ñor nag ba tax mu yebal Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke mii toog ngir mu teewel ko fii ci liggéey bi nee sëñ Cheikh naa nee na mi ngi lay jaajëfal bu baax Mbacke nee na ci kaddu yi nga xamante ni yëkkati nga ko fi léegi muy kaddu gu matale muy kaddu yoo xam ne kenn ku ne mën na caa jariñ nag di ko yóbbante rek ak cant ak ngërëm ci mboolem turu. ci mboolem turu karawaanu maa yomb yëpp. kon mbooleem magi kër Sëriñ Tuubaa gi ñooy sant soxna Batoor Seck ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal taxawaay bi yëpp Cheikh Daaru Seck soxna Marème Seck moom it di jëwriñ magi kër Sëriñ Tuubaa yi ñoo loo di sant di leen gërëm di wane seen mbégte ci yéen ak seen kontaante ci yéen ak la seen waajur ya nekkoon foofee rek ngeen taxaw liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak lépp luy jëmee liggéey Sëriñ Tuubaa kanam kon nee na ñu ngi ñaan loolu soxna Batur yal yàlla saxal leen ci yaag booleem ñi ngeen ko àndal di wane na kontante ak mbégte lool ci délégation bii nga xam ne ñoo teew fii ci jiwàllu te Sëriñ Moodu Murtala kon bu ñu yëkkatee bis bu toll nii dara jaarale ko Seex Abdul Ahad yàlla def nekku fi mu yebal sëñ Basiiru mu ñëw toog kon mel na ni sëñ Abdul mu ngi fi ndax lu mu yàgg def la ya bis yàgg naa ñëw mu wuute ko ni dem leen sëñ Basiru wala sëñ Basiru teewal ma fa kon teewaayu sëñ Basiru gi mooy teewaayu sëñ Abdou Lahad sëriñ bi nee na ngi nuyu sëriñ Mourtala Mbacke kàddu yi mu fi yëkkati doy na sëpp kàddu sëriñ Cheikhouna Bousso di nuyu sëriñ Cheikhouna doy na sëpp kàddu yi mu na sëpp doon na kàddu yu soññee mën ndax seeni kàddu yooyu nekk na kàddu yu soññee ay kàddu ngërëm di kàddu it mbégte sëriñ bi nee na fu ñu dajee ci mboolem murit kenn yëkkati fa kàddu yooyu rek ne daanaka doy na sëkk nee na mu ngi nuyu sëriñ Fallu sëriñ Fallu bu sa Tamba di ko siyaare bu baax te bu it di ko ndokkeel bu baax muy borom xam-xam bu rafet te wéral ko sëriñ bi nee na mu ngi ñaan yàlla yàlla yokk aw fanam te wéral ko jëwriñu daayira bi ñu doon wax léegi mooy sëriñ bi ñëwoon léegi mu ne jëwriñu daayira bi ñu doon wax léegi nga xam ne mooy sëriñ bi tedd fi ñëwoon léegi ñu ngi koy siyaare bu baax sëriñ ba nee na ñu siyaare bu baax bi ñu agsee waxtaan na ak ñun sëriñ Basiru nee na bi mu yegsee waxtaan na ak moom am lu ñu leeralal ci li leen tax a am lu ñu ko leeralal ci li leen tax sëriñ bi nee mu kontaan bu baax a baax a baax a baax dégg yi tamit la ma ko wax bu baax nee mu ngi siyaare imam bu tedd bi nga xam ne ma bàyyi ko Gabon ngi ànd ak moom mooy di ñaan suñu borom gën koo dëgëral ñu ngi siyaare waa dëkk bi sëriñ Basiru Mbàkke nee mu ngi siyaare waa dëkk bi waa Joalo yëpp di nuyu maam kër Sëriñ Tuubaa bi di jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko tekki loxol imaam sëñ Jibril Mbay mu jottali ko mbokki taali bi ak mayu kër sëriñ bi yëpp sëriñ bi nee na yéen ñëpp ñu ngi leen di sant moo xam daayira yi ci dëkk bi yëpp ak mbokki soxna yi te muy jigéen ñi ñu bokkal dëkk bi yëpp sëriñ Cheikh Mbaye mii nga xam ne itam ñëw na ci kër ga fekk si ma di ma ko doon ma yëgal bis bi ak sëriñ Cheikh mii nga xam ne ñëw ba ñëw na ba ci këram moom Cheikh moom basi doo ko yëgal ci bis bi ci la ko leeralee lu bari sëñ mu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér nag nanu gën a àndandoo gën a rafetal suñu yéene gën a rafetal suñu yéene gën a jàppante te jëmmi Serigne Touba ji tax gën a jàppante te jëmmi Serigne Touba rek tax ba lañ fa bëgg ba lañ fa bëgg suñu borom yombal lépp suñu borom yombal lépp ñu defee ko nañ ko bëggee ñu defee ko nañ ko bëggee ci baaxu Serigne Touba loolu nag ñu ngi ciy sant waa Joal bu baax Serigne bi nag loolu nag mu ngi ciy sant waa Joal bu baax ñu ngi leen ciy soññi bu baax mu ngi ci soññi bu baax a baax ndax noonee ngeen noonee Serigne Fallou mu la nekkoon eh, ca Gabon ndax noonee Serigne Fallou bu sa moomu nekkee woon ca Gabon doon fa jàmbaari Serigne Touba nekkoon fa jàmbaari Serigne Touba Sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy bi Sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy ba adduna bi yëpp xam ko noonu la sëñ Abdou Lahad ak magi kër Sëriñ Tuubaa yi fi nekk liggéey la Sëriñ fii ndax Sëriñ Tuubaa de fépp ci ay taalibeem nekk nekk liggéeyal nañ ko fa liggéeyal nañ ko fa liggéey boo xam ne ku fa ñëw xam ne ku fa ñëw xam na ay taalibeem ñu ngi fi ndax fii ci dëkk bii jamono nekkoon na fi. jamono nekkoon na fi. ku fi julli ñu ne la tonni ko. ku fi julli amoon na jamono yoo xam ne ku fi ko. kon bu ngeen fi ñëwee mën fee gis kër Serigne Touba. kon bu ngeen fi ñëwee mën fee gis kër Serigne Touba. muy wàccuwaay boo xam ne mboolem doomu bu mu a doon mën na fee boo xam ne mboolem doomu bu mu a doon ak foo mën noo mën a mel boo ñëwee mën nga fee wàcc. jumaay Serigne Touba ñu école si Mourtala bi nekk fii. kon muriti jiwaalo it ñu ngi dox bu baax. sëriñ bi nee na ñu leen sant bu baax di leen gërëm. bu baax itamit. te xam ne yoon wi nii rek la. te xam ne ngi laxasaayu. li fekk ñi ngi laxasaayu. fekk ñi ngi dund. fekk ñi ngi dund. suñu laxasaay ci liggéey sëriñ Tuubaa du jeex. suñu laxasaay ci liggéey sëriñ Tuubaa du jeex. nañ ko gën a feddaliwaat bu baax. gën cee góorgóorlu bu bu baax. te bañ cee boole lenn lu ci bokkul. te sëriñ ndax sëriñ Tuubaa dafa sell. ku sell nag da ngay wut lu sell jox ko ko. ku sell nag da ngay wut lu sell jox ko ko. ñu mën la koo defal na nga ko bëggee. ñu mën la koo defal na nga ko bëggee. kon nag nañu gën a laxasaay waat. kon nag nañu gën a laxasaay waat bu baax. ñu ngi soññi góor ñi. sëriñ bi nee na mu ngi soññi góor ñi. ñu ngi soññi jigéen ñi. ñu ngi soññi jigéen ñi. lii nga xam ne soxna Batoor moom la indi fii tey. lii nga xamante soxna Batoor Seck moom la indi fii tey. nga xam ne dañ ko waroon a jàllale Ndakaaru. nga xam ne dañ ko waroon a jàllale Ndakaaru. biñ ko waxee mu wax ak borom këram ne da koo bëgg a indi fii ci. biñ ko waxee mu ak borom këram ne da koo bëgg a indi fii ci Jiwaalo